Euh, internet yi ñu ngi ñu koy laaj te gis naa ne nit ñi yittewoo nañ ko mooy bayre ak protection aar te loolu nag ginnaaw bi nga xam nit ñi xaw nañu ci sonal ñu ni tey dinañ ñëw ci wàll bu gën a yaatu wan leen ni protection ak bayre yépp am na mu ngi fii te yu mucc ajib yoo xamante ni dinañ ko détailler incha allah ci kattanu yàlla ak baaxam waaw sëñ Ousmane dañoo bëgg nga waxtaan ñu ci xeetu yan xeetu protection ak yan xeetu euh, bayre moom moom laa bëgg nga leeral ko jaam yi ndaxte liñ koy laaj bëri na moo tax mais yan xeet nga ñu mën expliquer yoo xam ne yu efficace na yoo xamante ne mën nañ ci jàpp ñu euh, mu xam nu war a mën demee daal. Euh, Chérif ñu ngi lay nuyu di lay ziar di la jox sa wàccuwaay. di la ziar ndokkeel ci weeru koor wi di la ziar ci sa turu maam li nga laaj lu am solo la parce que protection moom mooy njëkk daanaka bayre doo ko ñëw e, protection lépp loo xam ne protégé boo ko rek daanaka yàq ko day yomb bëtt ko day yomb muy sa wàllu liggéey muy sa wàllu yaram muy sa wàllu am-am muy sa wàllu koom ak lu mënti loo mënti ci àddina dañ koy protéger moo jox la ci ñaari misaal benn bi nga bay sa tool ba mu ñor te ñagoo ko clôturé woo ko bàyyi ko noonu bukki yi dañ fa dugg xaj yi dinañ fa dugg nit ñi sax dinañ fa dugg donc bu ko defee rek rendement bi nga waroon a am parce que di nga ko amati waaw donc kon moo tax protéger ko baax na du bokk ak ki nga xamante ni tey toolam daf ko ñag wala mu miire ko mu mm. ko bunt tëj ko dem yoonam kooku moo lay ëpp rendement parce que protéger na toolam bi ci des muy si kër exemple nga jël sa kër rek bàyyi noonu bañ a tëj bunt bi ak ndakaaru di mel man ci jamono ji waaw feneen fu dul ndakaaru sax tëjoo sa buntu kër tëjoo sa fenêtre tëjoo sa buntu néeg mm-hmm. bàyyi noonu defe naa bu ñu jëlee sa portable yaa ko teg sa bopp donc loolu nag protection boobu ngay def booy tëdd tëj sa néeg mhm. tëj sa véranda tëj sa buntu néeg tëj sa fenêtre pour sécuriser ko noonu la ñuy protéger yaram ak alal ak euh, yu bari mhm. waaw waaw loolu am na solo mhm. waaw mel ni man euh, yan xeet nga ci yor wala xeet yu ñu ci dafa bëri xam nga protection bëri na ay xeet mais tey dinañ ci indil boo xam ne ndombo lañ koy def ndomba boo xam ni eh, juróom-ñaari gaaw lay nekk nga xam ni ñetti téere lay boot xam naa ëw ba sax dina dina xaw a compliqué mais loolu moom ñun ñu koy liggéey ñooy xam nu ñu parce que dafa am nu ñu koy ewee ak nu koy bindee dafa am ay conditions. Mm-hmm. Eh, mais mag ñi dañ lay wax ni la wuute ay la maanaam ay buy ñëw doo ko fekkee mm-hmm. da ngay day ñëw ba jeex ba ay bi jeex nga egsi mm-hmm. wala nga dem ay bi doo ko am mais ay moom doo ko fekkee te yàlla dina def doo di nga mucc ci accident mm-hmm. di nga mucc ci lu mel ni fital mm-hmm. wala di nga mucc ci lu mel ni paaka mm-hmm. di nga mucc ci lu mel ni làmmiñ xam nga nag protection bi gën a grave mooy làmmiñ sànq yaa ma ko ñu ci waxtaan parce que làmmiñ wolof mooy wax ni làmmiñ bu reyul sembal donc làmmiñ dafa grave sa sa sa far maa ngi wax sama benn xarit ma ne ko yàlla de mooy rey mais tiktok bi boo xoolee temps ñi ciy dee ñu bëri nañ ay jeunes rek ndax boo siiwee nag te gaan protéger woo sa bopp nag ah, lamiñ moo baaxul xam nga koo xam ne foo ñu ne mi ngi nee mi ngi mhm. sa Sadio Mané fu ñu mi ngi mi ngi mhm. président de la république fu ñu président mi ngi mi ngi amul protection mhm. ci wàllu lamiñ ak bët ah, lu la dal yaa ko teg sa bopp moo protéger wu xam nga ci wàllu protection temps yi am na ay naar yu fi ñëwoon di teg ci ay un milliard defe naa pour takk til mm-hmm. takk til mooy pistolet bu la ko dóoree du tàkk mm-hmm. bu la tul bu la jamee paaka du bën te am na gàllaaj yoo xam ni ñoo gën loolu parce que am na gàllaaj yoo xamante ni tey yow ngànnaay du la rey paaka du la rey fital du la rey loolu koy moo gën ngay xaar bañ lay tiire du bën maanaam ci yooyu boo ko yoree. ngànnaay du la du la rey kenn du yor ngànnaay di jëm si ci yow. loolu am na solo. waaw kon mbokk yi dañoo ko dégg noonu kon Ousmane li nga wax am na solo ba nga xamante ne yaakaar naa ku dégg di nga ci bëgg am. waaye yaa ngi ma wax ëw bi ba dafay jafe wala lu war a wa waa jafe na de jafe na parce que man bu dee ndomb yi may defar ki ma koy ëwal sax mi ngi walo ci gën a wóolu. macha allah ñu waaral ma ko yónnee mu ëw ko. Mm-hmm. yónnee waat ma ko. parce que dafa am ay conditions yoo xam ne moom lañ koy ëwee même ba ci bind bi dafa am conditions yu moo tax du du yomb yëpp da am. loolu mm-hmm. kon kon bokk internet yi ñoo ko dégg noonu euh, kon gaaw leen allah rabi ku yàlla def nga dëppoo am moom ci néew noo koy amee euh, nga xam ne am nga tawféex daal macha allah. allah. Mm-hmm. waaw mais tamit euh, wàllu siiw. Mhm. wàllu siiw mooy bayra bi parce que ginnaaw bu ñëwee ci protection mhm. am na bayre bayre boobu am na ñaari façon am na sax yu bëri mhm. mais yi nga xamante ni mooy yi tax nit ñi gën nit gën a soxla. am na ndomba moom it boo xam ne képp ku nekk ci xat-xat wala sax nga nekk Europe di wut ay këyit yooyu yëpp day jaf day jafa jafe dindi jafe-jafe. manam jafe-jafe boo nekkoon daf koy dindi yombal say mbir te daf lay may tur fi ngay liggéeyee dañ lay xam fi ngay mhm. nekk ci wàllu politique bi wala ci walu musique bi ci wàllu mahabba mbëggeel nit ñi dañ lay bëgg maanaam daal comme ni nga ko waxee woon rek da ngay def buzz ci ci ci nit ñi loolu tamit bayre moo koy def mais nag am na boo xam ne càngaay la am na boo xam ne ndombo la koy da koy takk moom it macha allah ba mbuy wujj lijjanti kayit sax yàlla da ko da koy yombal loolu am na solo am na solo kon loolu nu waaye def pour nu mais bu dee ni dafa nekk bu sori pour am ko dafay jafeem de wala tamit dafa nekk Dakar wala Thiès ndax dafa am ku bëgg ndax nooy fexe ba mu am ba mu yegg ci moom. Mm-hmm. ah xam nga jamono moom léegi dara soreetul mm-hmm. man garab yi may joxe nii mm-hmm. daanaka ñi ci ëpp Europe lañ nekk te ñu ngi may seetaan xam nañ ko maa ngi leen nuyu de passage te GP yaa ngi fi. da jël rek teg ci jox jox la sa numéro GP ñu yóbbul leen bu dee ñu nekk ci région yi da nga koy teg ci Jakarta yi rek ci horaire yi ñu dem wala cag-cag yi mi ngi fii livraison à domicile tamit gaa ñu xam nga léegi jamono moom moo dox ba nga xamante ni mën nga toog fi nga toog commandé li nga commandé ñu indil la ko waaw loolu moom du jafe na fa naa jafewul. waaw xanaa fay gi kay mooy xaw a jafe moom parce que nag yii moom du du du yomb. waaw macha allah waaw yii moom euh, lu baax. du lu baax. Hmm. njëkk cee jot mooy jafe-jafe bi waaye amaat ko duñ duñ xam nga xam nga Chérif doguma la mais xam-xam lépp a ngi fi sunu maam ñi lépp lañ saytu woon man dafa am xam-xam yoo xam ne sax damay rus ni wax ne xam naa ko wala mën naa ko mhm. parce que nit ñi duñ la gëm mhm. xam nga tey dama lay wax ne man mënuma faj mhm. paralysé man mënuma ko exemple paralysé moom mënuma ci dara lu dul ñaan yàlla rek lu yàlla def ñu noonu mais am na ñaan boo xam ne ku ko def doo paralysé pour pourtant prévention yooyu moo gën xaar ba feebar. Mhm. dem di ñàkk ay millions. loolu loolu wér. te ay ay ay mag ñoo ko fi joxe ay mag ay kilifa yooyu nit yàlla yoo xam ne ay wàllu yu kaamil. Mhm. yoo xam ne seeni wax xanaa duñ ko wéet. Hmm? waaw ala kulli li nga wax na solo kon fagaru moo gën. faju faju mhm. te ñun nit ñu ñëw ni dañoo tàmm. dem ba ñu mu tële ñuy doog yóbbu. Mm. wala ñuy doog dem wut uh, uh, ay uh, mustaay ak yenn matuwaay mm. kon li nga wax solo mm. kon ku ci bëgg kon am ko di jafe daal di di allah insha allah insha allah askan bi ko allah jërëjëf euh, mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen tàggu ci beneen yoon di leen jox beneen numéro ci beneen vidéo ci beneen dox dag dig daje wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh internautes yi yéen ku nekk xam nga ni seen tey Ousmane Ndiaye moo ñëwaat yàgg nañoo def faj diabète diabète de type 1 ou de type de wula ngay jël glucose sa taux de glucose yokk wala ngay piqûre am insuline indi lañ leen benn solution muy tey diabète tey diabète nag li ko tax a jóg mooy gar ga diabète yow mi amee jabet day wàcce diabète bi ba nga xamante di nga mën a commencé waat jëlaat sa sucre normalement donc avec des résultats avérés ñu ñëwoon indi leen ko posologie bi nag mooy sous forme de lipton la benn sachet ngay jël bouillir ko dans un litre d'eau tu le jël tasse matin ak le soir après chaque repas su ko defee inshallah ci carton yalla ak day dem ba tout de glucose bi da ngay day normalaat nga commencé à reprendre de l'ex sucre ci lu gaaw ci tu ni du yag au maximum 6 mois